tey nag ñëwoon nañu fii tey parti démocratique Sénégal yi ci njiital Saliou suñu frère Saliou Dieng mi nga xamante ne moo yor wàllu structure parti bi waaye aussi mu yor wàllu li nga xamante ne mooy njaayum carte yi tey ji mu ñëwoon fi tey doon waxtaan ak askan bi responsable yi ak sympathisants yi ak militants yi ak mouvement de soutien yi ngir leeral leen li nga xamante ne moom la jëm muy njaayum carte bi mu doon loo xamante ne nii président Abdoulaye Wade dafa sàkku ñu ñu jaay carte pour que maanaam parti bi ñu institut maanaam ñu mën koo yeesalaat ndax umpale wu leen ne depuis 1996 ba léegi parti bi kenn yeesalu ca boobaak léegi ay at la kon war nañoo yeesalaat parti bi ba ñu mën a xam département bu nekk. ak euh, région bu nekk ñan ñoo fa nekk ndax loolu day dimbale nit ñi pour ëllëg ñu mën a taxawal ab comité directeur bu boo xam ne bu wér lay doon waaye aussi ñu mën a taxawal secrétariat boo xamante ne responsable dañu ci mën a gis seen bopp ndax ëllëg bu ñu koy tànn ci noonu lañ koy tànnee mais aussi dana leeral ëllëg bu ñuy tànnati ay député du ñu am problème mu tànn su ñu waree tànnati ëllëg ay conseil wala lu muy mën a doon ëllëg dana yomb tànnin wax ndax danañu xam kenn ku nekk mooy kan suñu frère Saliou ñëw na ak équipe bi mu àndal bi ñu ñëwee yi tamit population tubaab bi yëpp génn nañu teeru ko dalal ko ndax umpale wu leen ne ñaari fédération moo am fédération Touba ak fédération Mbacké tey jii fédération Touba ñoo daje. waaw garantie bi ñu leen mën a jox mooy incha allah yàggatul dara bu soobee yàlla président Karim Wade dana ñëw liggéey bi danañu ko wéyal mooy fexe ba jaay carte yi fexe ba Touba lu mu néew néew ñu fexe ba contrôler au moins. comme ni ñu ko bëggee suñu bëgg-bëgg mooy quatre-vingt-quinze pour cent yi wala quatre-vingt-dix pour cent bu population bu Touba ñu fexe jàpp nañ ne loolu rëwuñu ndax tey li feeñ fii tey tey lañ lan la woon tey defuñu woon du woon tey dañ doon amal rek ab réunion pour waxtaanee mbirum carte yi ndax su fekkoon meeting la dañ koy yóbbu ci ca boulevard ba wala ñu ko ci terrain bi comme niñ ko daan defee mm-hmm. mais dañoo woote rek uniquement pour joxe information lancement njaayum carte yi pour ñu jox leen information yi loolu rek la woon te gis ngeen tey mbooloo mi tey kenn amul foo toog nit ñi dañoo taxaw loolu dafay wane ne parti démocratique Sénégal fa mu nekkoon démb ak bërki démb toujours foofa la ne day wane ne aussi ndaw ñi ba léegi président Karim Wade lañ bëgg moom la ñu sopp moom lañu ñu àndal te bis bu Karim Wade ñëwee incha allah danañ leen woon ba ngeen xam ne Karim Wade moo fi nekk incha allah suñu bëgg-bëgg mooy ñu amal élection mosuñu d'accord mukk ci ñu reporter ay élection parti démocratique Sénégal mësul d'accord ci loolu communiqué yi ñu mujj a def yëpp loolu moo mas a nekk suñu taxawaay suñu samoon sañoon élection ñu amal ko respecte date yi nga xamante ne ci lañ ko war a amalee loolu moo mas a nekk position bu parti démocratique Sénégal